asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu yéen bokk jullit yi bokk dëkkandoo yi bokk taalibe ñu ngi nuyu ñëpp di siyaar ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm ak salaam te sàkku ci ñëpp ñu li ñu ñaanal jàmm yàlla mi am jàmm te du ko jeexal mukk yàlla ñu yàlla boole defal jàmm bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa ñu ngi nuyu ñëpp di siyaar ñëpp di tàmbale suñu nuyoo nag ak suñu siyaat te Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké mi nga xam ne moo fi nekkal xalifatul xama Cheikhul Khadim ak mboolem waa kër Xaadimu Rasuul gépp nga xam ne suñu ne waa kër Xaadimu Rasuul day daal di jeexali wax mooy waa kër Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké boo ne kër Xaadimu Rasuul jeex na waaye du tee ñu jàll nag ci ki nga xam ni moo di. maam Cheikh Ibrahima Fall Baabul nii ndax boo nee Xaadimu Rasuul si Ahmadul Xaadim fokk ñu déglu la ba xam koo say teg ni nga xamante ne waxtu woo tuddee yàlla ñaare boo ne laa ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi waaye waxtu woo tuddee Xaadimu Rasuul it ah, ñu bari ñu ngay déglu maam Cheikh Ibrahima Fall kon soo nekk maam Cheikh Ibrahima Fall da nga koy fekk sëñ Cheikh Jëmb Fall mi nga xam ne moo fi nekkal maam Cheikh Ibrahima Fall Baabul Muridiina ak mboolem njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall gépp nag bàyyiwuñu kenn ñu ngi nuyu ñëpp di siyaari ñëpp di ñaan ñëpp jàmm ak saam yéen yàlla boo defal jàmm waaye noonu la ñu nuyoo it waa Kaolack kër maam Abdoulaye Niass kër maam Ibrahima Niass di nuyu waa Tivaouane kër maam El Hadj di nuyu it waa Ndiassane nuyu waa Ndemeen muy waa Sokone nuyu it waa Thiès di ñuy sant Baro waaye nuyu waa Thiel ba. wàcce mu ngi sant rek sama bo sama bokk cekke bi waaye noonu lu ñu nuyoo it waa kunti yu bàyyi wuñu kenn daal ñu ngi nuyu ñëpp siyaari ñëpp ñaanal ñëpp jàmm ak salaam ah noonu la ñuy yi nag ak si fii ci kër gu mag yi nga xam ne fi ñuy defee waxtaan wi ci fii ci Mbàkke ci Baol Média mu nekk fii ci Euh, ñaari ci ci ci tabita bi ci xàll bu mag bi nga xam ne mu bàyyi koo Mbàkke jëm Tuubaa te dëkk bu mag ba te jumaa ju mag te sëriñ bu mag ba mooy fan mooy di Baol Médias su ñëwee Baol Médias nag ah fokk ma ne naa nuyu doog a jàll kon maa ngi jiital borom kër gi ci nuyoo bi di ki nga xam ne moo di Cheikh Mouhamadou Diop Thiat maa ngi koy nuyu te di ko siyaare di ko ñaanal jàmm ak salaam di ko ñaanal lii yéeneem ci dëkk bi ak liggéey sëriñ bi yàlla na ko ko yàlla may ci darajey Seydina Muhammad sallallahu am wa sallam am na ci yéene am na pas-pas te borom doom la te as gor la te rafet na jikko waaw nit ki boo amee jom rafet jikko am fulla ci boppam tey ndaw lu mu yootu mën na caa jot yàlla na ko yàlla jottali ci li mu yootu waaye ñu ngi nuyu mbooleem waa kër gi yëpp jiital ci soxna raw soxna war xapaal teg ci Baye Cheikh Gaye di jàll waaye ñu ngi suñu Serigne Mouhamed Niang soxna Codé jaw ñu ngi koy siyaare bu baax a baax suñu xarit suñu soppee sunu jarbaat sunu lépp ñu ngi siyaare itam euh, DJ Paco ak Moustapha Sène yaakaar Moustapha Sène la de Moustapha Thiam ak mboolem waa kër gi yëpp bàyyi woon kenn ñu ngi nuyu ñëpp di siyaare ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm mboolem waa na waa Baol ñu ngi leen di ñaanal ñoom ñëpp staff fi nekk yëpp ñu ngi leen di ñaanal góor ak jigéen mag ak ndaw ñu ngi nuyu ñëpp di siyaar ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm fa jàmm. mu mel ni kon tey ginnaaw bu ñu ñëwee ci seen émission bi yi nga xam ne moom la ñuy wax gànjaru xel xaalam. te ki nekkal ci fi ñuy àddoo di àddu ngeen di dégg di seen xarit di seen soppee Bassirou Seck ndongal daaru nam tey ñu ngi jëmaloon suñu waxtaan ci benn tomb bu ñuy wax ndénkaan tey jii ca lañ xelale woon sunu xel jëmale ndénkaan yaatu lool ngeen kaan yaatu lool nag tey waaye nag dafa jafe lool léegi ñu dénk la nga def rek la nga xam ne nga def te la nga xam ne moo war ko nu dénk te yaakaar naa ki nga xam ne dafa ñëw mayut la lébalu la saraxut la dafa yor loo xam ne dafa am app bu ko dafa am waxtu bu mu ko yitti woo amaana tàggagul ci waxtu woowu te wóoruwul ci boppam jàpp ne bu ko bu ko yoralee boppam man na am mu sànku mu ñëw am ci nit ki kóolute yëkkati ko dénk ko ne ko am ma denc am ma dénk la yaakaar naa am ma dénk la mooy am dencal am dencal nag dem denc dem denc dong ca war maa ngi de noonu lañ daan téye dénkaan man de maa ngi fàttaliku yu bari nag léeg ma wax ko sax nettali ko sama baay waaye na booy nekk ci àll bi wax dëgg sama baay laa xamoon te la ma doon gis mu di ci dund rek laa mën a waxtaan moom di wax dëgg yàlla boo ko masaan di dénk lu deme ne xaalis wala lu mën a doon daf naa def ko ci sagar fas ko fi barab nga fas ko indi mooy dagg ci yóbbu te boo demee nga garde ko nga denc ko ba waxtu boo bëggee jël si ndénkaan di nga yóndaale ko moo xam mooy xaalis moo xam lu ma doon de foofee nga ko fas jox ko mu dugal ko ba mu ko dugal de bu fecc kootee yow mi yaa ko fecc si waat waxtu wooy ñëw saw sa sagar ba mel ni wa nga fasoon ngay indaale mu xool xam ne sagar bi yéeg bi benn mu jox la nga tekki muy benn ana loo dénkaane woon nga ne nangam mu jël sagar wa di wër ba gis ba mbokkal mu jox la nga fecc la nga waxoon na ca mu xam ne kon wii mooy sa wow nu roole woo ko kenn mu jox la nga dem waaw defoon naa ko rek defoon na ko rek gis naa ci xaalis boo xam ne mu ngi ko faroon ci biti denc na ko lu dem ci ñaari at bay dugg ñetteelu at ba xaalis ba doog a feeñ waaye keroog ba mu feeñ sagar ba mu nekkoon ca nekk dara jotuwu ci kon mu jëkk noonu lañ doon dénkaane waaye ndénkaanul tay nag demeetul noonu léegi na ma bëgg leen ci indil benn euh, tuuti li ñuy wax benn xise boo xam ne ci ndénkaan la amoon boo xam ne ci mbirum dénkaan la ndax nit ka day dénk moroomam nit boroom kër dina dénk soxnaam soxna dina dénki boroom këram waaye boroom kër bi bu dénk soxnaam bëgg na waxtu wu ci àggee ba ko sox ba yittewoo ko bu ko laajee soxna soxna si la ko mu ngi nii bu yàlla defee mu wuute ko it bis bu ñuy toppatoon bi dem soxna na war naa àtt ne lii de moo moom moo ma ko dénkoon day dox ci diggante baay ak doom day dox ci diggante njaay ko jarbaatam day dox ci diggante maama ko dox ci diggante ñi ko surgaam waaw kon doom yi dénk baay doom day dénk ndey te day dénk maam maam maam day dénk sëtam jarbaat dina dina dina dénk nijaayam noonu la demee kon dénkaan daal la ngoog mbir gi nag moo xam dafa xewoon ndaxam jëm di yàlla may ngëm la waaye dafa am lu ñu ko dénkoon nag ba jël si ndénkaan nag muy bëgg a fàtte muy bëgg fàtte boppam bëgg a fàttali ko ko dénkoon benn waaye gi nii dafa yeex yeex a denc soxna lool yàlla nag moo ko dogaloon fi moom rek nda du woon ak pokat du woon lenn waaye yàlla moo dogaloon ci moom rek mu yeex a denc bu yàlla dexe mu denc soxna it mu toog lu yàgg ndeysaan ba yaakaar dafa dootoo am doom yàlla doo ko ci am ay benn doom ju góor mu yor doom ji ba toll ci ab sàppent nga xam ne léegi tey mu per waaye feragul sax waaye jege na ko rek mu ngi daam dem ak dikk da bàyyi bëgg ko loolu la caan fu mu toll ko fooyee kalpin bis nag waa ji jóge fi tukki mooy tukki yu jëkkee rek nga xam ne rek daan yoru mbuus def sa puusal nga bu sa ndox di dox di yendal ak a banaanal ba ngay àgg fa nga jëm ndax tukki boo xam ne tukki bu si loo xam la moom dem ba du neex li ñaan mooy sooy dem lu dem ba métti métti sooy dikk te na dikk ba neex waaye dem bi moom ñaari duy neex mu tukki nag tukki bu demee noonu ba def ay weer yàlla def mu ñëw waaye bis bi nga xamee ne nag ci ñëw bis boobu mel ni sa démb sa yàlla mi nga xam ne moom moo ko dénkoon moo sax naan ñu sëq ndénkaan li suñ boroom daa soxla ndénkaan li ginnaawam mu mel ni mu jël ko tey te suba sa moom mu ñibbi lu nekk ci tuba yëpp nag xel maa ngi doom ji ndeysaan bi mu ñëwee xelam nekku ci lenn lu doom ji doom ji la yàkkamtee gis yàlla bi muy ñëw nag mu agsi waxtu waa xam ne bi muy agsi xaw daa guddi ma ak si fëgg soxna si ne koo kan la mu ne ko mën a diw xam nga yëkk néegi néegeen daan dëkk ba wut naag néegi tey soxna si daal di jóg xel mi daal di daj te xale bi nelaw ba dégg te xam ne moom jëkkër su ko yëgee ci guddi gi musibaam jabar ji daal ne rek daal di fëkk ay ay séeréer daal di gaaw daajale ci ginnaawam daal di fa bu mu mbalaan mu rafet daal moom daan muuri xale bi daal ko ci muur taal ko defal ko mel ni nit mu daal di jóg rek daal di ubbil jëkkër ji jëkkër ji dugg si ne tegg bagage rek daal di agsi ci engagé bi daal di yóotu bëgg yàq mu ne ko ëpp naa def ni yaay mu ne ko ah, mu ne ko dimbali ma rek ngir yàlla boobu ba léegi day jooy dafa xawoon a jagadi lu ne dañ naa ko danga maa fekk ma ni ñun ba jéem fëkkante ki ba rek nga nga agsi te boo ko yëkkatee dina yeewaat te bu yeewaa xam naa des ci guddi gi du ma ko nelaw te yow mi di doog a agsi yaakaar naa sonn nga bëgg ngaa dallu yaa tëdd bu suba yow kaay ma toppatoo la nga reer boo reer tëdd ba bu subaa jàmm boo xëyee boo boo xëyee kay incha allahu rabbi waaye yëpp naa yee daanaka daanaka ni tàpp tàppal tàpp tàppal euh, yéen wa ni doom yaa ko tëdd njaa ni defal li wax rek yow itam yaa nañ def noonu rek boo ko defoon dinaa sonn da nga sonn da nga sonn donc jëkkër ji daal di bàyyi ndox mu dem xëppoo ji ndox indil ko reer mu reer mu toppatoo ko ba mu reer bopp noppi def lépp tëdd ndaay tëdd waa ji tëdd bunt bi xale baa ngi ci jëlëg ba ndaw si nekk ci digg bi ndaw si jóg toog toog rek toog rek dem mu leer mu jekk-jekk ma ba mu yàgg jëkkër ji xool ko ne ko lu xew da ngaa mënta tëdd nga toog nii yow digg guddi gi ñëpp kii yow looy def nii doo tëdd nelaw bu subaa jàmm lu xew ba jàmm la mu ne kon yaay sama tey tey tey moom ah, woo xam ne mu ne ko ah mu ne ko danga maa fekk naqar bu metti mu ne ko ak ah, diw diw de moom a dénkoon daaw de daaw ba mu koy denk boobu dama ko ba ren mu ne ko ah jënd ba mu ne ko wax ah, ba ren tey mu jékki-jékki rek ñëw ci ngoon rek ni ma sama dund bi ma ne ko ah yéen boo dénkaane kay boo demee ba toll ci war ko jël da nga ko war a laaj da ko war a teel a wax borom surtout dénkaane daaw rek ma ne ko ah xanaa dénkoo dencoo woon rek man dama am dencal ma bu fekkee da koo dencoon kay waxtu mu ñëwee war nga ma ko mën a jox. mu ne ko dénkaay daal boo ko dénkaay wax dëgg yàlla boo àggee ci ko jël du nga ko war a dénkoon mu ne ko man nag da wax dëgg yàlla moom loolu xaw ma ko ci man di lépp lu mu waay dénk bis bu bis bu àgsee pour denc ko bu ñëwee dina ci jot sama alali bopp laa mënta denc soxla am te def ma ko waaye alali jàmbur moom bu mu ko dénkee lu mu yàgg-yàgg dinaa ko garde ba wax bu borom ñëwee man ko ko daan jox ndénkaay daal noonu loolu laa ci xam daañu xamul ni jaay kii dafa doy ki mante moo tax nit ñi ne kii mënta def ak ñoom commencé wax wax wax ba jeex ni jaay na ko déet taxawal mu taxaw mu ne ko yow xanaa dénku la ko woon rek mu ne ko ah ko dénkoon kay waaye ni jaay loolu kenn du ko def kenn du dénkin ba mu neex rek nga jékki-jékki xëy rek ñëw jox ma ko ne ko jox ma li ma la dénkoon mu ne ko déet ki la dénk daf ne la am dencal ma am dencal ma la ca mooy denc. bu fekkee daf laa jox ne dencal na nga fab denc waxtu wu mu mën a ñëw muy guddi muy bëccëg ak lu mu la bett bett bu yee war ngaa mën a daal di génn ngeen kaan yokk wa ilaa boobu bu fekkee fa nekk daal nga ne ko may ma bu asamaan ñu dénk di sax doo ci wóolu sa bopp nga dénk keneen waaye bu ko defee ba nga rek maa ngi bu am ku ma ko dénkaatoon te mënu ma ko yee ci diggu guddi gi maa ngi boo liggéey ba mu jël ko waaye wax dëgg yàlla waroo dugal ndénkaan li fenn fuy tax nga di ci am ak borom ndénkaan li benn problème mu ne ko ah, kon yow yu njaay da ngaa bëgg wax ne yow man naa kooku man naa ko tooñ mu ne ko ah, yaa ko tooñ kat ah moom moo la dénkoon dencal ma moom yaakaar na ni yaa ngi bis bu ñu ko soxla te ka mën na koo dénk nag soxla woon ko sax wékkoon xelam ci ne man ko soxla ci wér wala di ñëw diggante bi soxla dab ko fi waaye waxul woon dara boo ko fi soxla bu ñëwee day ñëw rek laaj ndénkaan ndaw si daal ni cal ba mu yàgg mu daal di mu daal di <tsk> ah wax nga dëgg di ni yaay nga wax dëgg la man de maa tooñ wax dëgg yàlla wax nga dëgg waaw ah, man de loolu laa mu ne wax nga dëgg ni yaay la kon daal ku dénkaane ku dénkaane seen dénkaan ku ne waxtu wala neexee jël seen dénkaan mu ne ko waa wow te ko ko dénkoon lu mu ca teg lu jox la ko dénkoon. day bëgg a day bëgg am ngi bëgg dugg ci lu mu xamul ndénkaata ak ndenc ma dencal bu borom ñëwee waxtu bu borom ñëwee jël jëlam la dénkoon bu ca am lenn la ndénkaat su ko borom laaje nga am te lenn lootee mer wala lootee naxaloo kon naroo woon te ndénkaat la denc képp daanaka wax nga dëgg njaay mu ne ko njaay mu ne ko naam. mu ne ko moor yomb jaajëf si gën a ko wax yombut moor yombul mooy doom ji daa sonn lool doog ci jot daa demoon ba yaakaar dootu ko am maam ko tudde ko moor yombut waaw yombu ko woon kon dina ko fonk mu ne ko loo wax ci moor mu ne dañ la ko dénkoon de mu ne loo bëgg a wax foofu mu ne ko ndénkaan la lu la yàlla dénkoon de boo dénk na ko ñu ñaan ñu seq ko mu ne ko waaw mu ne ko ah yàlla mi ñu ko dénkoon de jël na ko bët ki waaye nag amuñu benn foo ko mën a yëge jël na ko bët ki démb de ba yàlla def na ma nga ca barab ya tëdd tey jëkkër ci commencé commencé ne def ay kii métti mu ne ko ah nijaay am na loo ma wax léegi am na loo ma léegi da koy bëgg a fàtte te kooku ma dénkoon man nit képp la te yow yàllaa la dénkoon kon dénkaaneel yàlla li mu la dénk ba mu neex ko mu ñëw jël si ko yow loo ci bëgg a loo bëgg a teg mu dëgg mu fam ñaari fam ñaari ñaari loxo yi dar ko ci bopp bi sëgg lu yàgg. ba mu yàgg dënn bi ba mu yàgg mu ne ii ne siget ne jàkk soxna si soxna si ne jàkk waaw kon jàkki jàkki jàkki soxna soosu ak boroom këram boobu kenn ku nekk am na lu jàpp tey cim xelam woppee tax ñuy wax gànjaru xel kon kat mbir ngoog mu laaj njàngat kon ñu ngi laaj yéen lan mooy seen xalaat ci moom mbir omel niñ ko doon waxee rek nday dee dénk doomam ba bis mu xëy soxla dénkaan ndax lu doom def lu dul teg ci loxal ndayam def na wut noonu tey bis bi nday yëkkatee dénkaan dénk la bis boobu rek nga war a daal di fab denc te xam ne bis dina jot mu soxla ko wala bis dina jot mu wuute ko te ñu war a fab lam bàyyi woon séddale ko ña ko moom bu keroogee war ngaa feeñal loolu ñu la dénkoon dina dox ni ma ko waxee ci diggante ndey ak doom day dox ci diggante mag ak rakk day dox ci diggante nijaay ko jarbaatam day dox ci diggante nit ak surgaam kon diggante bu nekk ndénkaan man dafa am waaye ginnaaw bañ la dénkee daal lan moo war ndénkaan lan moo war ci liñ la dénk yow mi ñuy dénk lan moo la war ci ginnaaw buñ la dénkee ak yow mi dénkaane lan moo la war ci ginnaaw boo dénkaane kon wax jàng foofu kon ñu ngi leen di déglu ci lan mooy tontu li lan mooy njàngat li ak nu ngeen gisee mbir mi ak nu ngeen gisee soxna si foofu foofii nga xam ne li tax ñuy wax ne gànjaru xel xalam soxna si day foofii waddu la xelam moom ba takkal takkal ko gànjar ga gën a ndax nu mu defee woon nu du mën na am du ko jik du jik du jik du këram bi waaye waddu na fam xelam takkal ko gànjar def xalam xaram bu ma sëkk bala naroon a tàng ba naroon a metti naroon diis lépp mu fexe ba woyofal ko saral la naroon a tàng woyofal la naroon a diis dalalaat xelam góor gi dalal ab xolam kon mu mel ni xel mu rafet góor da ko yor waaye jigéen da ko yor gone da ko yor mag da ko yor mooy li olof di wax naan xel puusawul wélla mag dina ko for gone dina ko for kon waxtaan waa ngoog jërëjëf ñu ngi ñëpp di siyaar ñëpp di ñaan ñëpp jàmm ak saam yal yàlla boo dafa jàmm ki leen nekkaloon ci euh, waxukaay bi di àddu ñuy dégg mooy seen xarit seen soppe seen am di jàmm ba siiru sekk ndongol Darou Minam ci ban seen émission gànjaru xel xaalam kon bàyyi nañ li ci des ngeen xaalam ko ba xam du ngeen ci génne jërë ngeen jëf